Uh, ñaan bi ku mu faxe ba jubbanti njàng mi ak mi xandi ci ay coppite ñoŋal ko lii mooy bëgg-bëggu njiit réew bu Sénégal Bassirou Diomaye Faye démb ca conseil des ministre fala la ko xamlee réew mi yéene kaay na njiit réew mi kay fa jubbanti amalaat càmbar ci njàng meeg njàngale mi fa wax na bëggatu fee gis abri provisoire ñu xoolaat programme njàng meeg njàngale mi naka noonu école privée yi fexe ba intégré daaray alquran yi te mooy yéene kaay na ko fa wane projet bi mu am ci njàng meeg njàngale mi le soleil yéene kaay ne école bu bees doxalin bu bees ci réewum Sénégal fexe ba andiwaat jikko yi baax yi ak yéene yu rafet ya am ci askan wi fexe ba làkk réew mi muy xolof ak yi ni mel ñu di ko jàngale ci biir école yi maanaam élèves yi fañ leen di firil leçon yi ci olof yu leer naññ fexe tamit di jàngale anglais ci école primaire yi programme yeeg njàngale meeg école yëpp ñu dugal leen ci xarala yu yees yi numérique ak digital nas ci lu toll juróomi at recrutement jàngalekat yi ci matière yëpp Dakar Presse ne njiit réew mi a njàngale mi enquête yéen a kaay na bëgg a yeesal njàngale mi l'observateur na ko faa aaye tëggam sabar ak simbu ak fecc yu bon yi nga xam ne xale jigéen fañ koy fecc ci école yi ka jiite njàngale ma ci diwaanu Louga moo dëggal li ni mel ci tere ko fa ña tere seeni député ñu bokk ca comité bi Ousmane Sonko sàkk woon ngir ñu xamal contrôle ak càmbar ña ñu jox wàllu suuf ca pegg géej ga mooy bureau assemblée nationale Amadou Mame Diop fa ñoo bañ ne député duñ bokk ca commission bi demuñ les su ko yéen a kaay ne ñuy kat kon fa ñoo taxaw fas yéen a ñàkkanteg Ousmane Sonko li mu boo gisee mu xam mooy assemblée nationale bureau bi fa ñoo a saboté tax ñu bañ Dakar presse yéene kaay ne Ousmane Sonko sax du yàgg dara fay dem ca assemblée nationale ngir amal déclaration politique générale ndax su boobaa fañ koy bañal am déet li ci kanam raw li gët leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Pape Demba Bitèye ma jiite woon Sénélec président Diomaye fay fa ko wàccee secrétaire général am ba Pape Toby Gaye moo ko remplacé info yéene kaay ne président Diomaye Faye kay ma ngay wéy di kët dagg bopp directeur général ya maanaam ngay dàq rek yow seetal woon Azer kajji nañ ko football dàq ca biti ka jiite woon Petrosen moom it fori na new fañ koo tëbal laas yéen kaay na dagg bopp ya ma ngay continuer jeexagut ndax yaay Fatou Diagne moom itamit fañ koo dàq football kat ji ca bopp promogem ba mu jiite woon wàcce nañ ko source a moo ñu ko xamal gp yéen kaay ne Alioune Guèye nag moom la ñu fal moo jiite léegi Petrosen naka noonu Abdou Diallo fañ koo football dàq kat ji ca biti Baara Ndiaye fañ koo wàccee Fatou Ndiaye Bondin ak Amsatou Sow Sidibé ñoom fañ leen gu bees point acti yéen kaay ne Amsatou Sow Sidibé moom it xam na ndoo mu mu jiite maison de la presse wuutu fa Baara Ndiaye leer ba yegg na ma jambal jaañ fa wax ne bor bi ma yoral état bi war koo fay dëgg-dëgg mënu ma koo fay te ñun suñuy compte banque même ci jamonoy Macky Sall fañ ko fi daan tëj li ma dal nag lu ji njaaga inspecteur impôt domaine yi nga xam ne militant Pastef yi la ñoom la li ma xam nag comme pexe mooy état bi xanaa mu tëj suñu entreprise yi yor yor yéen a kaay ne lii daal mooy kàddu ma jambal jaañ jëm ci fay bor bi nga xam ne moom la yoral état bi ci fisc bi turbine seen bor bi ndeke defut ca dara ba pare nag mu bàyyi ñu ak jomaay fay président bi nga xam ne fi ni moom fa ñuy xupp 40 bor bi ñuy wax nag dees na ko xoolaat réunion lañ doon amal daar daar ñoom kilifa yi yi jiite këru taskatu xibaar SEDEPS ña sàkku nag état bi teggi loxom ci yenn seen compte banque yi tëj teral yéen kaay mel ni ku naan leen yéen daal yooyu di wax wax leen ak Macky Sall ndax moom moo leen def naxee mbaay comme lam toogal njiit réew mi ngir ñu xoyofal leen yëf yi Dakar presse fa ñoo xamal ne Juan Branco avocat Ousmane Sonko tubaab ba yéen a ngi koy fàttaliku tey ci alxames ji fay ñëw Dakar ca université bu Ndakaaru ndax étudiant ya nekk faculté science juridique ak politique ñoo ko xoo ngir mu defal leen conférence <laughs> leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy na Adama Faye goro njiit réew mi Macky Sall nekk mag wala rakk ci Marème Faye Sall teg nañ ko loxo de takk deray fañ koo jàpp moom Adama Faye ci wàllu njublang tappale terrain suuf libération na li dal Doro Gaye rek moo ko dal bokk même cas yaaw seetal Adama Faye fa jaay terrain benn waay te joxut ko benn këyit waaji na ko delloo ma sama xaalis deux cent soixante quinze millions waaji bi mu ko porté plainte ci jamonoy Macky Sall fa ñoo bloqué woon dossier ba léegi bi Macky demee nag jomaay ñëw ci lañ génne dossier ba moom sax jotoon naa avance borom terrain ba la des mu ne ko faa la fay ndànk-ndànk moratoire te mujj te respecté loolu mu waxoon moo tax ñu jàpp ko ma nga gardaa wi de ba tey yéen a moom tamit fay dem wuy ji yoon tey ci ci jamonoy Macky dafa ko porté plainte yoon na ko kaay leeral la leer lay si ko yéen a kaay ba mu wax ñu ko mooy Barthélemy Diaz maire bu Ndakaaru fa génnee benn milliard ngir tabax lycée Grand Dakar ndax càkkute fu njaboot gi la woon ak xeex lépp lu jëm ci wàllu école privée yi l'évidence yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne gerte gi ñuy séddale jiw ca commune bu Gagnic nekk département bu Mbirkilaan fa fa xam gerte goo xam ne juróom fukki kilo ya presque fukki kilo yëpp suuf la waa aar sunu moomeel ñoo ko wax la mu wax jàpp léegi Sénégal te mu bëri lool nee na loolu fa yàq deru Sénégal te tuuti moo des fi mu toll réew mi ñu ko boole ko ci réew nga xam ne moom la ñu wax réewu narcotrafiquants yi te loolu baaxut tàggat yaram tànnee fu ñuy war a bokk ci coupe du monde 2026 Sénégal tey ci alxamis ji bu 19 heures jotee fay bal ak réewum RD Congo stade ne mbuqi gaañu am ñetti point rek lañ leen sàtt rek lañ soxla nag xamul la neen donte Sadio Mané du bokk ci jongante bi ndax fa gaañu waaye Ismaïla Sarr mi ngi fi RD Congo nag juróom fukki at a ngi nii ak juróom mësta dóor réewum Sénégal fukki yoon ak benn lañ bal ñu yoon libération moom fa ñoo mu yéeme directeur de l'internat fañ ko jàpp teg ko loxo ndekete moom la tëddee ay élève mineur xale yu ndaw wàllu pédophile ak yakkataanak yakkataan ak yëfu saay-saay daal ci gàttal kenn ca xale yu jigéen ya fa nekk xam fukki at ak juróom-ñaar rd fa wax ne suñ directeur bi sëy na ma juróomi yoon forcé violé ma ñeenti yoon yëpp buróom la ma yóbbu tëj ma fa forcé ma ànd ak man xam na benn bés sax banaana la jël def ko sama xawro bi ndaw lu ñaaw te bon léegi na yoon def liggéeyam teg ko daan yi war